saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Luc Nicolaï mañ doon ñaanal liberté totale demande liberté totale rejeté Luc Nicolaï reste prison mbooleem la ko doon ñaanal muy liberté totale cour d'appel ba rejeté na ko gannaaw ba maître Cissé bindee ab demande di koy jébbal waa cour d'appel ba dañu koo ubbi xool ko lemaat ko ba mu roo delloowaat ko ko ne ko ñun du sunub cër cour d'appel bi dafa incompétente ngir addu ci mbir mi le journal mook Ama Baldé ba léegi ñu ngi ci guddi gu bët setagul fan la ñu koy defee kañ la ñu koy def moo ëlëm nit ñi promoteur bi ko tëggoon bind na demande ñu bañal ko ko jàngoro jaa ngi ne xus ci réew mi demagul loolee nag bokk na ci li tax ñu njortu ne combat bi ak amam leeratul la leeragul ba léegi mooy est-ce que dana geesu Gris Bordeaux ngir jox ko revanche wala mu geesu Tapha Tine la trois oratel lii laaj boobee la sunu làmb sàmb bëri nay amateur yuy réclamé yor ca gël gu moom la leen a géejawaay ñiy ñàkk adversaire moom bokku ca xanaa mu nam ma def année balance rek waaye ñaari mbër yëpp ngi toog di ko xaar leneen la journal ba fësal mooy diggante Diène Kayré ak Bathie Seras gannaaw ba amateur yi sàkko bile combat Bathie Seras ne pare na est-ce que war naa bañ Bathie Seras gannaaw ba mu génnee ca match nii la ba ca arène nationale le 15 juin moo Queens ba léegi amaatagul beneen combat ba mu dox mbër ya nekk ca kanamam nekk ci xelam la bëgg a bëreel moom ñi mu bëgg a bëreel cité na leen te mu ngi xaar kan moo ciy nangu bu dee bàcc séeraas moom mu nga fa mu nekkoon ba léegi di xaar adversaire ubbil la buntoom mbër yi rawatina jeune espoir yi gone gu ci am fit am jom ñëwal bàcc séeraas a ngi toog di la xaar bu nu jàllee ci problème yi am ci làmb ji diggante ak yépp mataar ba ñëw na ci moom la ministre des sports yëkkati na ay kàddoom daal di waxee ci Alioune Sarr lam ca xamle mooy mënuñoo dàq na fi jóge ñi koy wax du waa làmb yépp am nañu d'accord Alioune Sarr jóge d'accordut adduna nag noonu la ñuy dañuy nangu ñuy bañ mbiri Alioune Sarr fi mu toll nii du ma ci wax du ma ci jël décision ñoom seen mandat juillet lay jeex te bu juillet jotee danaa jël décision nit du nekk ci mission nga naan ko bu sa mission jeexee danaa la yokkalaat wala danaa la wàññil en tout ba des mooy bu mission bi jeexee man monsieur le ministre danaa jël décision rax ca dolli ne jafe-jafe yi làmb ji nekke bu jàngoro ji jàllee danañ ciy ndey saafara sponsor jàppale promoteurs yi ñeneen ñay jàppale seenu maire mooy mbër ya dëkk ji di coronavirus ñoom mbër ya ca Diofior dajaloo nañ dajale seenu xaalis jébbal ko